di jot vidéo yu ci HDP religion da ngay bés fii ñu wax sabone boo noppee ñu teg ci kolos bi. Euh, problème bi jëkk am daal mooy ginnaaw bu Ibrahima Koddu Jóob jébbuloo rakki Lat Joor ba noppi nag rakki Lat Joor la doomu ndeyam la ba noppi nag bokk ci dag yi sësuñ ci moom kàngam yi ñu ko daan jàppale. bi jébbuloo ci sëñ bi te fekk ne kilifa la woon ca ñooñe bokkoon ca jàmbaar bokkoon ci doonoon ko woomal sax nag nga xam ni amoon na cër bu mag ci màng mañ jëloon ci xareb Samba Sadio Samba Sadio ab dëkk la bu nekk ci penku Njàmbur digganteem ak Jolof ci la xare boobu yi xewe woon Ahmadou Cheikhou Ba moo jóge woon Fuuta ñëw déclaré jihaad ci ñoom ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag ñuy jullee ko war déclaré jihaad yàlla xam la mu jublu woon woote waaye ginnaaw bu ñuy jullee di woor daal la déclaré jihaad ci ñoom digganteem la xewe woon ak digganteem ak Lat Joor la xare bi xewe woon waaye Lat it la tubaab yi jàppale ko ndax booba dañoo jàmm dafa dox seen diggante booba ko jàppale ñu xeex mu not sëriñ yi muy Ahmadou Seexu rey ko armab Lat Joor jële ca màng mu bari alal ju bare bare ak ci jaam waaye mboolem ñañ jàppoon ci ay jaam nag waa réew mii la muy diggante Jolof ak Fuuta ak Kajoor Jolof ak Fuuta ak Kajoor ñañ ci jàpp ñëpp ñooñu képp lañ ay jullit lañ yit nag bi mu leen jàppee moom buur bi muy Lat Joor dafa laaj ndax mënees na leen a def ay jaam lenn ci boroom xam-xam yi na wax dagana la fu ne ko mënees na leen def ay jaam ndi ngir sëriñ bii di xare muy Ahmadou Cheikhou dafa woote ni ab yonent la kon léegi deretam dagan na ñu rey ko dagan na it ñu lekk liñ màngi ci moom ndax doonatul ab jullit ñu wéyal loolu yi waaye nag li mooy woote gum woote woon ak nubu woomam saxut fenn gisuñ ci benn dalil buy tegtale ni dafa woote woon ni ab yonent la bi Ibrahima Koddu Jóob moom yi jébbaloo ci sëriñ bi sëriñ bi daf ko wax ne ko mbolem ko ci ko ci jële won ci jaam bu bàyyi ko won fofé nang ko bàyyi mu dem ndax duñuy ñuy alal jo ci jële won na delu léegi nak bi mu delo jaam ya lam ci amé won mu set ca la Joor ak ñam andal dañu gis ni li sëriñ bi digal ibrahim Kodd mi dafa mel dafa firi sen fatwa bobu ñoomal xam-xam bañ jàppoon dal di dafa ci loola ngir ñom lañ ya ubbe won moy ni dagan nañu jaamu leen ñu méré ko dagi fexé ba dajalo ci kanamu la jor fexé ba wofa fa Ibrahima Koddu momi mu tew ñu wax ko ci kanamu la jor ni ko yow ana lu waral nga ànd ak say morom nek ci ndabul teranga nga jekki jekki ni bet won len ginaaw doylo wo ci doylo wo joggi doylo wo joggi waye da nga tibbu suuf xep ko ci ndab la mun len waaw weñe ma sarax mani berit suuf si xep ci seen ka waye jublu ko mu melni ne saraxu weñ wo lim jullu moy leerug islam gi dugg ci xolam rek la wax la jubloo jàppe ndax non la non lay manam bu la nee car fal rek fokk nga soppi aw doxin fokk nga soppi aw toogin ñu xam ni li mu wax dëgg la sëriñ bi nag moom Lat Joor di ko woolu ndax dañ ko ne danga war a woolu sëriñ bi nag moom itam laaj ko ba xam lii mag ñi àtte woon di ay boroomi xam-xam lu tax mu firi ko ak fam ko teg nga wax ci ci keneen borom xam-xam yi ba xam fam ko teg la Joor di wolu serigne bi ci ak ñewante ta moy dank dank rek wo ko ci force waye koy wolu dank dank di ko bind bataaxel waye serigne bi digantal bu ko bindee bataaxel mu bind bataaxel tondu ko bu yónnee ndaw mu wax ak mom mu yabalat ndaw li waxat ak mom ni ko nekk nanga من قلبه تحيا في الله مصيب الطريق ملك باب دل البتار ما لا يتال من قسار بن بسم وخ آه، نداو لي لات جور يني نكو بولي مي نكو دما روس ملائكه يالله دما گيس ماي دوخ ديم تي بور بور يالله sëñ Madu Lamin mi ngi nettali ni murit bu ñuy wax sëriñ aadama Sàll ci ñi jëkkoon a topp sëriñ bi ci waa Jolof ci la bokk wax na ni bataaxel bi mujje dox diggante sëriñ bi ak lajoor moo ko yóbboon nee na sëriñ mi ngi ci bind nii leen Muhammad ibnu Maslama de radiyallahu anhu wax na ni boroom xam-xam bu taxaw ci buntu kër buur mi ngi mel ni woñ weñ wu tong ci kawi xayt bi mu àndee bataaxel bi Lat Joor jox ko xaadi ma jaxate boobu moo doon mufti bi nga xam ne moo joxe woon xam-xam bee ñu weesu xam-xamu mën si la jaamuloo xaadi ba mu jàngee bataaxel bi dafa déclaré istirja mooy ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ca kaw te ni Lat ne ko lu mu doon mu ne ko waaye lii kay jubluwul man mii la jublu mu ne ko waaye nag sa diggante yàlla wax ma li mu doon yi ne ko dafa wax ne boroom xam-xam bu nekk ci buntu kër buur mi ngi mel ni weñ wu toog ci kaw xeet buntu buur mi ngi mel ni weñ wu toog ci kaw xeet ne Lat Joor ne yow mi ci man mi la gën a traité ndax yow la jàppe ngay weñ wi waaye man mii kon maay la ci des daal di laaj xaadi ne ko waaye lu ci sa xalaat xaadi ne ko man li ma gis mooy nga bàyyi ko ñu bàyyi ko ndax notanteeg moom danger la ndax bu la notee ak kaweem ak kawe ak kaweem lay doon moom te yow bu boobaa danga ci ñi gën a suufe ci àddina bi ngay bokk bu la bu notee ci ñi gën a kawe ci àddina bi lay bokk yow da bokk ci ñi gën a suufe ci way suufe te it jortu naa ne bu ngeen notantee dana la not nag nee na laaj ne ko wax nga dëgg ndax ab baykat mën ci ay toolam ab pàkk boo xam ne du nooy ba mu mën koo rijji te du ko saxalal dara nee na mu ne ko waaw nee na xaadi ni ko waaw nee na bu mu laajoon ne kon nag nañu ko jàppe muy pàkk boobu rek nañu ko jàppe muy jànj boobu nga xam daa nekk ci biir sol bi kenn mënu ko rijji ba mokk te kenn mënu ko bay mu saxalal dara bi sëñ Mët Lamin nee na mbir mi ba mu jeexee ci noonu yi yàlla dafa àtte nag benn bis bu Lat Joor tukki ànd ak xaadi yi ma jaxate moom yi ñu wàcc ci ab dëkk bu jege fii sëriñ bi nekk sëñ bi déggee ni xaadi yi mi ngi ànd ak Lat ñëw fii mu daldi di jóg am mbégte lool ci nuy ji xaadi yi ngir jokk ko jokk gi ngir ñaari mbir benn bi mooy xaadi yi ab sëriñam la ci wàllu li boroom xam-xam yi wax ni ku la xamal benn araf képp sa kilifa la te am na tuuti ci xam-xamu naxwu lum jànge ci moom ñaareel bi xaadi xaritu baayam la woon Omar Ad Sali kon mu war ko delloo njëkk yi ngir loolu jokk ko ngir xaritoo gi mu xaritoonu baayam ndax yonte bi ne na bokk na ci njëkk ji gën a doon ci njëkk nit ki di doxuk bokk diggante bokk soppé way juram soppé bàyyam muy loolu ci ak top bo to ci ak top top way juram la bokk na ci top way jur ngay xol ñam lon nga di len jokk bim ñewé ba fekk len ñu tok ci ben laltay mu nuyu len nuyu worma daal di toog ci suuf tànkam nag tegu ko ci tappi ba daal di sax tuuti am fa ab diir daal di leeral qaadi yi ni ko damaa ñëw rek ngir nuyu la nuyu la képp moo tax jóg bi mu leeralee loolu nag ah, Lat Joor na ci ni li jubloo leeral mooy bëgg ñu xam ni moom mii taxu koo jóg waaye Lat Joor daal di wax qaadi ni ko waaw mbir moom war nañ caa wax ak moom ndax yow li nga ubbee woon moom daf ko firi woon li nga waxoon daf ko dindi woon bëggoon nañoo dajeeg moom ab jataay mënuñ ko am léegi jataay bi am na mi ngi nii kon wax ceeg moom nee na xaadi ni ko waaw man maa waxoon ni Ahmadou Cheikh dafa woote ak wa ci lool yi la teg xare bi mu doon xare ak nit ñi ba tax na deretam dagan na dagan na it ñu lekk lañ jële ci moom dagan na it ñu jaamloo ñeen ci jàppe nee sëñ bi noppi mbooloo mi noppi ab diir nee sëñ bi wax xaadi ni ko ndax dangaa wax ngir ma tontu la ndax xaadi ni ko waaw wax kay waxuma waxuma loolu la ngir bëgg nga tontu nee na sëñ bi tontu digal nga ma ma am naa ci digal xaadi ni ko waaw am nga ci digal digal naa la nga tontu sëñ ko kan mooy sa seere ci ne Ahmadou Seexu dafa woote woon ak nubuwa xaadi ni ko waa Kajoor sëñ bi ni ko waa Kajoor ñooy ay noonam di xuloog moom di xaree ak moom danga nangu seen seere ci moom xaadi ne ko déedéet waaye waa Samba Sadio ñoo ko wax waa Samba Sadio ga fa nga xam ne fa la xare ba xewe woon ñoom ñoo ko wax sëñ bi ne ko waa sàmba Sadio kuréel yi dañ leen a jóge penk soow fitna ci xewee fa ñoom ñoom yëguñ ku leen xamal ni kii woote na ak nubu xaadi ni cel mbooloo mi ni cel la ab diir ginnaaw bi xaadi yi wax sëriñ bi ni ko doom danu laa tegtaloon buur ba nga jiitu nu fa kon nag maa ngi lay ndokkeel ñu daal di tàggoo foofu la pënd ba tasaaroo loolu mooy li sëriñ Mat Lamin nett ci mbirum xare Sàmba Saajo ak la ca am sëriñ Bachiru ak sëriñ Mat Lamin ne dëppoo nañu ci nett li bi tuuti ak juyoo rek moo ci am goo xam ne juyoo ga du mënees na ko leer du ak juyoo du juyoo gu am solo ndax fi sëñ Madu Lamin waxee ni Lat dafa diisoo ak Xaadi ma jaxate ci mbirum sëriñ bi ci mbirum sëriñ bi bi mu firee fatwa boobu لم ينهني كفر ولا فسق ولا سرق ولا ما يطلب التخولا والله على قلبي كانت جنابي المقيم فوفو سيدنا لمن دا واخني Lat Joor dafa diisoo ak xaadi laaj ko lu ciy pexe xaadi xamal ko ne ko li ma xam mooy boo notanteeg moom mu not la kon ñàkk bàyyee ko moo gën nañ ko jàppee ni ab jaañ bu nekk ci biiru tool rek bañ jàppee ko noonu sëriñ Bachir bi muy nettali dafa wax ne lenn ci surge yi lenn ci dagg yi ñoo ko wax ni ko kii daal boo sàkkul ci moom pexe boo tul dana fi def lu ëpp ma wax ni ñaar yooyu mën nañoo ànd ndax xaada yi ci xam-xamam lee rek la war a mën a tontu ndax lee mooy xel mu rafet moo dëppoo it moo tolloo it ak euh, qualité xaada yi xalaat bu rafet boobu waaye xaada yi mën naa wax lee sëñ la Lamin jàpp loola waaye lii sëriñ Bachir wax ne lenn ci dag yi ñoo ko wax ne ko léegi da ngaa war a dal ci kawam sàkk ci moom pexe ba Lat Joor daa mujj bind xupp sëriñ bi ba mu ko xuppee sëñ bi ni leen réglement jàkkaarloog moom tax may bañ ñëw lii ma nekk it oma ci sikki sàkk ba tax may ragal a jàkkaarloog boroom xam-xam yi waaye nag xam-xam dañ koy fekki waaye du fekke sëriñ Bachir nee na xelum Lat Joor daa mel ni daa mujj daa jeng jëm ci bëgg e, teg sëriñ bi fitna waaye sëriñ bi yàlla mi mi ko aaral boppam moo ko fegal fitna yi Lat Joor jooji nanu ba diggante Lat Joor ak tubaab yi am rëng-rëng ngir doxal seen diggante njàqare lool yi ñëw not njàqare yi amoon yépp ba Lat Joor telatu ko waaw sëñ Bachir bi ma waxee loolu nag taarixa nii nag mooy delloo si boppam toujours daal ne lii mooy la xewoon ca Muhammad ibnu Ismail al Buxaari ndax buuru amirul Buxaara dafa sàkk woon ci moom ni ko dama bëgg nga indil ma saxiix bi waaye Buxaari yu tontu ko ne ko du ma toroxal xam-xam ci ko yóbbu fen ko yóbbu ci bunti buur yi buur bi génnee ko dëkk bi Buxaari yu ñaan ko yàlla ay fan la am ñu kuudetaa ko waral ko ci kaw mbaam di wër moom dëkk bi noonu lañ ko tëje ba nim faatu mboolem ña ko doon jàppale it ku ko ca jàppale ci loolee mën a moon rek yàlla nattu na la sëriñ Bachir ni loolu yi nag mooy li xew ci diggante sëriñ bi ak buur boobu muy Lat Joor ak ñi ko daan jàppale mbooleem ñi nga xam ne dañ daan feeñal ak mbañeel seen diggante ak sëriñ bi di ko jéebtaane di wax ci biir mbooloo naan xool leen rek ndeeteet lii di tantanlu ci kanamu tan mu mag mi mag a mag te booba lam jublu mooy xaar yi mooy tan mu mag mi li tax mu àtte ba noppi sëñ bi di ñëw di ko firi am na koo xam ne noonu daan reetaane sëriñ bi di ko sabote Lat ba tey noonu la amee woon rakkam ji jigéen joo xam ni ñi daan saboté sëriñ bi ci la bokk waaye kenn ku ne ci ñoom rek sëg mujj rafetut ndax Lat Joor ak la ca mujj daanaka dafa continuer rek di am ay tolof tolof ay xew-xew yoo xam day gën di dolliku naka noonu sëriñ biit di gën a dolliku ay leer mbooloo mi gën a jëm si ci moom àdduna itteelu leen dara dox seen diggante dara mënut dox seen diggante sëriñ bi ba ni Lat Joor faatoo moo sàmbalaw bi mi mujj ci buuri Kajoor te euh, colonial si rey ko mujj rek mënuñu koo tal daal seen bopp lañ gën a doon tal ci moom ngir problème boobu yi leen Dakar bi gaar la joor ba tëlatul mbirum sëriñ bi jafe-jafe am digganteem ak tubaab yi ba mënatu koo dékku ci la gàddaayewaat dem Saalum yoonu ñaareel bokkut ak gàddaay gu jëkk gaa nga ko maajuja dàqe woon waaye dafa dem ba yëf yi xat ci moom lool jafe-jafe yu bari moo ci la gàddaay waa dem Saloum ànd ak mbooloo ànd ak ay surga ànd ak waa këram ñu sax ci ab ca Saloum ab diir waaye foofu it amuñ fa ku dul Saïd Ba Saïd Ba doomi euh, Malick Bala Maba Maba Jaw mooy Malick Ba mooy Maba Saïd Ba képp moo fa ànd ak ñoom ndax ci moom la moom la jaayanteelu ginnaaw Maba waaye Saïd ñi jaayanteeg moom mooy ñi toppoon baayam te jóge feneen gàddaayee ci diggante Kajoor ak Bawol ak Jolof ko gi ak ñu néew ci waa Saalum nag waaye ñu bari ci waa Saalum dañ ko woon gannaaw te ka leen jiite mooy eh, taalib bépp Maba ba fa gën a mag ñu di ko wax Baraan Siise tam bokk ci ña am doole foofu lool ci réew Saloum yooyu tax na ba mu wonee gannaaw Saïd mbooloom salum salum mépp woon ko gën a danaka Saïd daal lam fa dese mooy ñu gàddaaye woon feneen ànd ak bàyyam ñëw waaye nag mbooloom bare bare lañ Lat nag bi mu xamee ni waa salum gépp Saïd ba képp la fi am yëf yi di daal di ci moom ndax suuf si day xat ndax buñ xasse genn fii rek ñi ci ñëpp seen noonu lañ andu ñoo ñoom te li leen doon arrangé mooy ñu mën a dëppoog suuf su dëppoog waa Saloum gépp waaye buñ ca amee ñenn am béréb yuñ fa mën a dox ya ca des mënuñ faa dox rek di daal di xat ci ñoom ndax tëmuñ lool foofu nag euh, fi la mbooloo mi xaajalikoo ñaari xaaj ñenn ñi ni ko nag léegi fokk nga dellu kajoor benn nga xeex ak tubaab yi mbaa nga jàmmoo ak ñoom waaye fii moom mënee su fi nekk ndax xat xalaat boobu Lat Joor nanguwu ko kon def na ñaari xaaj léegi ñi xalaat nañ ne dellu képp ay dëgg moom nanguwut xalaatu dellu gi ñu daldi koy wor bañ ko woree ànd ak jarbaatam bu ñuy wax Sàmba Lawbe Sàmba Lawbe moom nag lañu àndal dellu Kajoor dem jàmmoo ak tubaab yi daldi koy fal buuru kajoor sa booba Lat Joor mi ngi Saalum Lat des Saalum ba foofa metti ci moom mu delsi waaye ba mu bëggee delsi kajoor it colonialiste si bañ ne suufu si kajoor moom du fi dugg mu des nag moom Lat di wër di seet pexe yi saa ma nga Jolof yi mu nekk diggante kajoor ak Jolof ci wetukaay yu mu daan wet foofu dema dema dem ba yokkat mbir yi am xelam delsi ci moom gannaaw bu ko ay surgaam ak i dagam yépp wore ak i mbokkam jëng dem jàppale ji sàmba law ab jarbaatam ñoom ñëpp ñu ànd takkutoo dem ànd ak nguuru tubaab yi kenn desul ànd ak Lat ku koy défendre mu mel ni laaf yi daan naawe daal damm na léegi mu jaaxle lool des ak ñu néew ci waa këram ñoo xam ne ay gor lañ la leen fa bàyyi mooy gore ak fàttaliku démb mu jaaxle ba am xelam delsi nag mu mu mu xalaat xalaat jullit yi xalaat ceddo yi kum ci war a diisool gisul kenn ku ko xelam jox gisul kenn koo xam ni biiram set na wecc ci ay farfarlooy àdduna gisul kenn koo xam ni ab xolam jàpp na dara ci xëccoo ki bañante ak sàkku kilifteefu àdduna ku dul sëriñ bi sëñ bi képp daal la gis ci koo xam ne xam na ni yàlla kese kese kese moo nekk ci xolam amul lenn lu muy jàpp wax ci kaw di jàpp leneen ci suuf amul fenn fu muy demit di fa di ko fa reetaane mbaa mu di ko fa sabooti naan bàyyi ko rek nangam ak nangam comme ni ko nit ñi gisee moom képp la xelam dal ci ni na diisoog moom ba xam lu mu gis mu dem jàmbat ko li xew ci waa ak njabootam rawatina nguur gi ñëpp niñ ko wane gannaaw ni ko dañoo takkatoo jàppale sama jarbaat ñu dem négocier ak tubaab bi léegi nag man am naa ak jaaxle dama lay laaj ba xam ndax dama war a gàddaay dem ci réew yu sore sore ngir sàkku foofa kàttan gu ma jàppale ngir ma mën a delloo si nguur gi ci samay loxo wala dama war a fexe ba lijjanti ci waa réew mii ñu ma jàppale ba ma xeex ak ñoom ba jotaat ci nguur gi walla nu may e def daal nu may e def daal xalaat daal laa lay laaj waaye sëriñ bi tontu ko eh, te booba xarit yeeg noonu yi ñëpp doyloo nañ ko waaw ah, ndax sell gum sell diggante ak borom ni ko man de lii sama xalaat ci ku àdduna woon gannaaw mooy nga woon ko gannaaw bàyyi waa nguur gu yees gii ak seen àdduna ndax na nga xam ne force bii fi ñëw kat muy doole ji doole ju ñëw la joo xam ne dara mënu ko dëpp lu dul suñu borom mi ko fi indi waaw te ku am xel ku ne it doo jéem a xëccoog ñoom ndax ni ñu la ëppee doole ëpp na ni ko sa këri bopp ak sa nguurug bopp gi ci àdduna la bokk bu la wane gannaaw wan ko gannaaw ni ko man nag mën naa laa dogul ni la boo bàyyee mbooloo mi gàngoor gi ñu dem nga bàyyi ngànnaay yeeg fas yeeg yépp des fi yow képp def ni sa mbokk mii def danga am lu gën ci yow ci sa digganteeg sa borom te danga nopp noppalu it ci mbiri àdduna yi ak njàqari àdduna yi def nii sa mbokk mii muy Ibrahima ko def mooy jaayante féeteeg yàlla te bàyyi nag kërëb kërëb bi àdduna yi ne ko li nga wax dëgg la wóolu naa ni mooy li gën mooy li gën a yaay waaye nag diis na ci ku ni ma ne mu dekki-jekki génn ci àdduna ko yël banding rek ba sa ci wecc waaye nag léegi li ma doon xalaat lépp léegi dañ na ci sama xel léegi léegi li ma doon yaakaar it Eh, ni nga ma yee jàpp naa si labiré yi nga ma labiré léegi kon dootuma waxate ak yow ci dara lu dul lu may jariñ fa sama borom alaaxira ak loo xam ni dana ma mu ëllëg rek kon nag nag ma dimbalee jox ma benn tur yàlla bu may sikkar ak wu ñaan gu may ñaan loo xam dana ma jariñ ci sama bàmmeel te jox ma sa yére bopp loo xam ni su ma faatoo moom lañu may sànge te bañ may fàtte ci sa ñaan nee na sëriñ bi digal ko mu wattu ak ñaan goo xam ne moom moo ko defoon ci ay istixfaar moom sëriñ bi moo ko taalifoon ay jéglu yi mu taalifoon euh, jox ko am mbubb it Lat Joor tàggoo moom ba tàggoo moom ñaari semaine rek lañ ci teg euh, bu armob euh, nguur nguur gi fàq ci kawam booba lu ëpp ci waa réew mi ci nit yi boor yi réew yi ci këri boor yi ña ca nu faq duñ ko wër mu xex ak ñoom xex bu tar waaye ab dir bu gàtt la am rek euh, jam-jam yi wër ko fune mu dal di daanu wàcc fas bi dal di faatu waaye nag euh, déngi déngi wut ci taxawaayam euh, mi ngi jàkkaarloo ak noon yi ngir amoon yéene yi dee ci xare yéene yi dee ci jihaad moom la amoon moo tax wundu leen ginnaaw ña ngi ko reye fa teenu deqale loolu bisub àllarba la eh, ci atum junni ak ñetti téeméer ci gàddaay. ngay man di jot rajo yu am solo yi bàyyi koo fii ci HDP religion da ngay bés fii ñu wax sabone boo noppee ñett ci kolos bi.